voilà comme ni ngeen ko gisee ñoo ngi nii fii nga xam ne mooy Géejawaay ni nga xam ne waa Pastef moom la ñu organisé dem ci marche pacifique bi nga xam ne organisé nañ ko niki tey tey fii ci Géejawaay ñu déparé fi nga xam ne mooy PA yi yaa ngi gis noonu mbooloo mi ci njiitalu Khadija Mahécor Diouf di maire Golf Sud di jigéen ju jàmbaare lañ njëkk seen nii ci kanam mu taxaw ak euh, gars yi nga xam ne moom la àndal dégg nga ñu ngi clamer libérer les otages mooy ñi nga xam ne jàpp nañ leen jëm ci manifestation yi Euh, ci li nga xam ne gis nañ ko ci fan yi yëngu-yëngu yi nga am li nga xam ne ñoom lañ jàppoon ñu ngi ni di avancer ndànk-ndànk ci marche bi nga xam ne ñu ngi koy def euh, avec une une mën nañ déployer un peu mobilisation bu xaw a bu xaw a limité par rapport ak euh, yi fa daan amoo ah. mais n'empêche ñu ngi suivre bi nga xam ne waxoon nañ ko ñu ngi suivre en plus de ça heure bi nga xam ne aussi joxe woon nañ ko ñu gis nañ fi nag ñi nga. ñi nga xam ne ñooy responsable politique yi euh, ki nga xam ne moo ci gën a ràññatle di Khadija Mahécor Diouf di maire Golf Sud ak ñi nga xam ne ñooy mbooleem waa Pastef Guédiawaye yi nga xam ne ñoom lañ àndal tey di def li nga xam ne moom marche pacifique bi nga xam ne accompagné na dispositif sécuritaire bu remarquable parce que euh, ñu comme ni ñu ko gisee nii les policiers sont là les hommes de tenue sont la di encadrer li nga xam ne mooy euh, bile manifestation ndax nag c'est autorisé par le préfet donc moo waral bile encadrement ci ci calme ñuy manifester pacifiquement ñu accompagner leen ñu li nga xam ne pour ñu mën a jàllale mépp message bi nga xam ne bëgg nañ ko jàllale fii ci Guédiawaye Pakistan Macky Sall assassin justice corrompu Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall. assassin Macky Sall. assassin Macky Sall. assassin Macky Sall. assassin Macky Sall. assassin Macky Sall. assassin Macky Sall. assassin Macky Sall. assassin Macky Sall. assassin justice. corruption justice. corruption justice. corruption justice. corruption Macky Sall. libéré. libéré. libéré. libéré. Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall justice justice justice Macky Sall Macky Sall Macky Sall justice justice Macky Sall Macky Sall Macky Sall justice justice procureur

dëgg na jox wax naan na dama dama dem du ko tax a dem day nax boppam na dama dama dem du ko tax a dem day nax boppam dana dem bàyyi yóbbu suñu Sénégal ñu defar ko ba mel ni war a mel Sénégal jàmm la bëgg Sénégal jàmm la bëgg ñun ñii jàmm Sénégal la ñu bëgg waaye du ñu nangu ku ñu nag c'est parce que bu mu jaam daj na mu yàgg lu seede lu seede Hadji Malick xeex lu maam Borom Touba xeex lu maam Limaamu xeex lu Bukuta Ndiassane xeex ngir Sénégal am liberté tey dañuy nangu sëpp lu Macky Sall ñëw dañuy nekk justice justice même pas justice même pas justice même pas justice même pas justice même pas libéré Saloum la nga xam ne jeunesse bi jël gaay gi di taale ba karam jëjju ragalu ko de dañoo samp nañ kër dañoo samp nañ kër mooy xale yi di jàng dañoo samp nañ kër mooy seen jàng ak xale yi kon jógee combat bi dañ leen koy doxal bu leen kenn dégloo ni ñii seen bopp lañ fi nekk bu ñëpp yemoon am lu jëm seen bopp yow bu seyoon lu mel ni moom waaye mën mu moom dañoo ñëw waxtaan ak Sénégalais yi jaay leen projet boo xam ne Sénégalais yëpp d'accord leen ci gis opposition bi parce que nañ def ci élection locale ak législative xam na ne le peuple a tourné le dos à Macky Sall léegi nag ba nga ko xamee lu mu def mu ne léegi day jaay doole jaay doole ba mu ne bu jaay sànq dafa passé parce que on fera face incha allah rabbi Macky Sall Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin Macky Sall assassin procureur procureur procureur Macky Sall assassin procureur Macky Sall assassin procureur Macky Sall assassin procureur Macky Sall assassin procureur Macky Sall Macky Sall Macky asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, di leen sant di sant tous les militans ak tous les sympathisants yoo xam ne euh, ñëw nañ tey participer ci marche bi ñu organiser mais bala ñuy tàmbali dama buggoon ngeen may ma nopp pour ñuy dégg ñun pour ñu pour ñu fi nekk ñun ñëpp dama bëggoon ñu tàccu suñu ay frères yoo xam ne instant yi ñu ngi ci kaso bi parmi lesquels on a Mamour Ndaw un jeune qui s'appelle Mamour Ndaw il y a un autre qui s'appelle Moussa Ba am nañ koo xam ne mi ngi tudd tamit Mohamed gay ak koo xam ne mi ngi tudd lamin mbay ak koo xam ne mi ngi tudd Badji Alassane Badji Alassane Badji donc ak sans koo xam ne duñ ko mës a fàtte muy Amidia donc lu tax ma ne ñu tàccu leen parce que ñooñu ce sont des héros ñooñu ay héros lañ parce que dañoo taxaw bañ nooteel loolu moo tax tey ñu nekk ci prison yi donc bu ma paree ci loolu euh, dañuy commencer séddale kàddu gi kàddu gi ñu ngi koy njëkk jox le coordonnateur de la marche et cordonateur euh, de la commune de Sam Notaire à savoir notre frère Modou Gueye Seck. ki nga xam ne actuellement. Ils sont kidnappés par le régime maléfique et funèbre de Macky Sall. maléfique parce que bi ñu bi ko falee ba léegi nekkul ci lu dul toroxal doomu adama humilier ay sénégalais ak fexe nu muy nootee ce peuple qui est un peuple digne qui lui a tout mais funèbre parce que bi ñu ko falee ba léegi nekkul lu dul di rey ay nit surtout nag sunu mbokk yi nga xam ne ñi ngi féetee fële ca Casamance. donc le régime de Macky Sall est un régime maléfique et funèbre comme ni ko président Ousmane Sonko waxee c'est un devoir pour tous les Sénégalais épris de justice qui ont une dignité en eux de se battre à nos côtés pour que Macky Sall ak ñi mu àndal ñu jóge loolu moo waral Pastef Guédiawaye ak Yewwi Askan Wi ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci coalition bi ñu ànd démb tey ak suba pour fas yéene jàmmarloo ak Macky Sall wax ko ne ko réew mi ci baayam donnuwu ko ci maamam te incha allahu rabbi duñ ko bàyyi mu doon buur ci mim réew. duñ ko bàyyi mu doon buur ci mim réew parce que loolu la bëgg a doon bëgg doon buur weesuwul nga ne yow képp ku bokk ci yow lu mu def bu ko neexee sax mu appel à l'insurrection wala mu woote meurtre. en la personne du président Ousmane Sonko dara du ko ci fekk waaye bu fekkente ne àndul ak yow gis-gis bokkul ak yow yoon wu muy jaar bu xefee sax nga jàpp te ci kaso sunu sœur Amy Dia ça fait plus de huit mois ñu fekk ko ci këram lendemain tabaski wala sur lendemain patam patamee yóbbu di ko jiiñ farce spéciale sunu sœur Bintou Sambou actuellement ñu koy jugé fële ci Tivaouane yor doom joo xam ne day namp ñu patam patamee jàpp yóbbu prison takal bracelet électronique dañ koy surveiller alors que enseignant la buy servir la nation sénégalaise. voilà un peu à ce à quoi ressemble le régime de Macky Sall il est un devoir donc citoyen pour tous les patriotes de se battre pour dire non à cette injustice là parce que nag dafa doy on a assez souffert le martyre dans ce pays on a assez souffert du régime de Macky Sall te koo xam ne barki démb fii nga nekkoon tekkiwuloo dara lépp loo am politique moo la ko may du xam-xam du njub du dara loo xam ne Macky Sall mun na ko mun nañu créé na ko ci réew mi lu mu am Ablaye Wade yàlla ak Ablaye Wade la nga xëy benn jour peuple sénégalais boobu taxawu la teg fi nga newoon jox la teraanga teral la tatagal la yow ak say njaboot nga bëgg doon traite di leen maltraiter di leen martyriser di leen humilier loolu dafay dakk ci nii mbaa ci ne marche tay bii nii dañ waxoon benn symbole la pour ñun dañ ko demandé woon le 29 ak le 30 le préfet a répondu pour aujourd'hui en disant que ne nangu na bu le 29 bi ñu ngi xaar lu muy wax pour suba mais dans tous les cas li ñu waxoon démb la ñuy waxaat tey autorisé ou pas on va marché parce que nag du ñu nangu suñuy droit ñu koy bafouer dans ce pays donc demain comme ni ko président Sonko ko waxee démb ci live am bi je pense que ñëpp suivre nañ ko xeex la combat bi nag dañu dépassé ay discours dëgg la naam ci weeru koor lañ nekk waaye bu ñu fàtte ne xare Badar ci weeru koor la amee woon. li ñuy xeex nii du ma ne xare Badar la de waaye jaamu yàlla la ndax xeex pour sa devenir dëkk xeex pour sa dëkk nekk ci naataange xeex pour justice am xeex pour dëgg mën a taxaw ci place su fen fen yi nga xam ne moom la procureur démb yëkkati wax ko ak ñi mu àndal xeex boobu ku ci nekk. yàlla day ànd ak yow te donc nañu jàpp ne jaamu yàlla la ñuy def nii jihaad la lañuy def nii donc ñu ngi ci woow bépp doomu aadama boo xam ne nga bokk Pastef wala nga bokk ci yow askan wi wala nga bokk ci beneen yi mais dëgg ñor la nga ñëw fekk ñu ci terrain bi suba ñu xeex ak Macky Sall merci beaucoup ci kàddu gi ñu ngi jox euh, merci beaucoup Daba ñi ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ñu ñëw ci marche bi di wax ni weeru koor la waaye wane nañu li ñuy dox ñor nañu suñu réew moo ñu ñor moo tax ñu woor ñun ñëpp fas yéene dox marche wax suñu naqar ci réew mi dañuy wax nag ni réew mi li fi nekk jéggi na dayoo te ku nekk yaa ngi toog yëgaloo ko sa yaram waaye li olof di wax lii raam si ñàkk ba la jëw la jëm te Macky Sall buñ ko arrêté fi mu jëm ak Sénégal yi ndox amu fa Macky Sall dëkk bi desalu ko dara Sénégal moo ko jàngal ba mu màgg Sénégal jox ko ay responsabilité jox ko responsabilité bi gën a mag ci réew mi muy président de la république su doon gor war na delloo njukkal dëkk bi au de loolu tey lu ñu indil mooy indil ñu guérilla di xeex ak population di maate population di leen réprimer kooku yaakaar naa ne tey jii sénégalais bu nekk yaa ngi naan auzu billahi minal Macky sonal na askan wi yëpp te liñ ko fale woon defu ko dañ ko waxoon mu fal ko pour mu liggéey ngir askanu senegal au lieu loolu muy liggéey ngir famem di liggéey ngir kanam tey jii nag Sénégal fi ñu toll mooy ni dañu war a xeex parce que ku xeex jotee ku xeexul doo gor Sénégal yi dañ leen a xiifal ba ñu xiif tey jii ku ci xëy li nga tal mooy lu may dundee sama njaboot pourtant am na ñu bari dañu adhéré ci cause bi waaye mun mënuñu bàyyi seen xëy di ñëw ci combat bi waaye ñu ngi koy defee si d'autres formes ñu ngi indi ñaan yi ñu ngi wax seen xalaat du ñu encouragé loolu doy na li ñuy def appel mooy jeunesse bi surtout la jeunesse la jeunesse c'est votre avenir qui est en jeu ñëw leen ngeen xeexal seen bopp ñun suñu wàllu rëy na ñu fi nekk di xeex yëpp ku ci nekk sax bëgg kër tey kon tey bu ñuy xeex dañuy xeex ngir suñu ay doom dañuy xeex ngir ay ay dañuy xeex ngir Sénégal jëm ca kanam dañu ne li am ci réew yi tugal mën na am fii Sénégal yàlla desaluñu dara jox nañu ressource ba mu doy jox nañu xam-xam ba mu doy jox nañu ay nit ñu am valeur tey kan moo ñëw bëgg a salfaañe loolu yàq loolu mooy Macky Sall te ñun bu dee am nañ fulla ak fayda ak jom war nañ jàkkaarlook moom ne ko loolu du fi am parce que seen bi mag bi nee na nit ku jóg di yàq lu mu ko jaral yow mi jóg pour defar war na jaral triple ba wala cent ya kon dañuy invité tous les jeunes ñu génn ci kër yi ñu ñëw ànd ñu défendre la démocratie sénégalaise ñu défendre le Sénégal parce que nag foofu lañ toll ak Macky Sall parce que Macky Sall en 2011 ñu nag moom ñoo doon nekk fële ca place de l' indépendance place de l'obélisque mu gàddu meeru gàddoom di wax ne Abdoulaye Wade julli gi ñaari raaka la kabar nga deex na tey jii nag moom moo bëgg a wax ne moom day julli tamit ñetti raaka ñu koy wax ni président de la république sëlmalal julli gi ñaari raaka la di nga sëlmal ci nii baa nga sëlmal ci nal suñu taxawaay tey lenn rek la mooy lu ñu tàmbale woon depuis dañoo dogu ne dañ koy yeggale te gisuñu fii ci réew mi fii fii ci réew mi Sénégal kan moo fi yeewu ba dara ñu. micro micro monsieur le président Macky Sall nag taxawaay bu mu am mooy li nga xam ne liggéeyoon nañ ko ci ci projet bii mooy projet PASTEF du ma ci dellu si ku ne xam ne projet PASTEF lan moo ci doxuñu projet PASTEF du pour ñun ñi nga xam ne tey jii sax dañoo bokk ci PASTEF projet PASTEF pour Sénégal la projet PASTEF pour Afrique la. c'est pour demain aujourd'hui nga dem France onze jours tey ñu ngi xeex réforme de la retraite nee na ñoom mu ñu ñu liggéey ba 64 ans ñu nag ñu dëxan ci suñu projet bi lu ne lii defar Sénégal bu faw sénégalais bu nekk bu dund bu dundee biir Sénégal mu yëg ne mu ngi mu ngi biir Sénégal mu dundee doolee poosam maanaam mu ñàkk jëriñu absolument honorable ñu yem ci suñu ressources yi yàlla may nañu ay ferñeent yu nekk ci suuf si waaye mënuñ ko jëriñoo yàlla may nañu Sénégalais yi bëgg nañu liggéey waaye feeñul ci ñoom ñun nag projet boobu lañ dëgmal Macky sàll projet boobu nee na la bëgg a nasaxal ñun dañ ne dafa tuuti ci nasaxal xeex bi nag dañ koy continuer xaaruñ ci kenn nag le peuple est souverain woote bu ñu woote woon démb moom la ñuy woote waat teen dañuy résister nous évoquons notre droit à la résistance loolu suñu constitution moo ñu ko may quitte à ce que vraiment suñu bakkan yi des fii ku fi sa bakkan des nga nga dese woy ku ci sa bakkan des say doom sigir ba faaw ndax ëllëgu Sénégal la ñuy xeex war nañu ñun ñi nga xam ne dañoo bokk Pastef war nañu képp koo xam ne doomu Sénégal la war nañu yéen ñii journalistes yi ce qui s'est passé aujourd'hui yéen ñëpp teg ngeen ci seen bët lan moo xew ba ay nit ne dañuy bëgg a dem ci seen siège pour def seen point de presse ñu leen du ngeen ko fi defee di ko barricade ban réew la ñu nekk en mille 2023 est-ce que démocratie bii lañ yaakaaroon ci Sénégal ba ñuy xeex en 2011 ba 12 personnes génn ci àdduna tey jii ñu ngi ci 30 morts plus de 400 arrestation te teguñu ko fenn nag ma ne ñun député yi dañu di fas taxaw dem. suñu neexoon ñu ne am nañ beneen doomu tànk waaye xoolal suñu doomu tànk bi fële lañ ko teg ànd ak askan wi xeex moo tax tey ci biir weeru koor bi ñu génn xeex loolu leen na sénégalais war a génn xeex donc waa Guédiawaye ñu ngi leen di gërëm di leen sant maintenez la pression maintenez la résistance Macky Sall va céder incha allah il cédera te dinañ gagné incha allahu rabi président Ousmane Sonko day dem palais yàlla musal ñu ci Macky Sall ak ay nitam ci koor gi képp ku képp képp de Sénégal de Sénégal te bu dogoo tey buy ndogu na ñaan yàlla yàlla ñu yàlla musal ci Macky Sall ak ay nitam yu bon yàlla na yàlla soyal ñu Macky Sall may bëgg a wax avec la masse silencieuse parce que leneen lu ci wax lu ma ci war a wax yëpp ñeneen ñi wax nañ ko la masse silencieuse du Sénégal yi nga xamante ni seen carte la ñuy utiliser dam leen bëgg a wax wax ni Ils n'ont pas le temps d'attendre pour utiliser leur carte. Le combat, c'est maintenant. Ce n'est pas le combat des urnes. Parce que Macky Sall veut nous suñu candidat yi ñu war a dem à l' élection présidentielle kon ku yaakaar ne da ngay téye sa carte ba nga xaar ba élection présidentielle yi pour nga mën a dem voter tu tromp parce que Macky Sall bëggul am benn électorat libre Macky Sall dafa bëgg choisir kan ak kan ak kan la war a janool donc nag man yéen laay interpellé très souvent parce que beaucoup de Sénégalais pensent que que ce combat là c'est le combat des politiciens c'est le combat de tous les Sénégalais du téye sa carte ba pare nga toog nga xaar parce que boo téye sa carte nga xaar amaana sa candidat ba nga bëgg a voter du mën a du mën a nekk candidat donc il faut que vous compreniez que cela boo leen toogee croiser les bras seen carte doo leen ko mën a utiliser donc levez-vous comme un seul homme et rejoignez-nous le terrain ngeen xamante ni combat bi ñëpp la amul intellectuel amul neutre amul qui que ce soit parce tey boo leen nekkee ay neutre ngeen mën a toog di jouir de votre liberté c'est parce que hier y a eu des gens qui se sont battus pour ça Rosa Parks bu muy xeex fekk na c'était une loi boo xamante c'est une loi de de boo xamante ni États-Unis moo ko voté mais dafa xamante ni mënul continuer et qu'elle devait se battre pour ses petits enfants et elle s'est battue aujourd'hui tous les Sénégalais veulent aller aux pour tey sax ay États-Unis mel nu mu mel donc ce combat là nous concerne tous c'est pas le combat des députés c'est pas de la coalition Yewwi Askan Wi c'est pas de personne d'autre que le sénégalais képp ku nekk sénégalais te ngay judd fi Sénégal di judd fi màgg fi di fi noyyi xamal ni combat bi yaa ko moom et que tu es vivement interpellé laa bëgg waxal mais également di fàttali les gens que Macky Sall nekkatul suñu nawle bàyyi leen di ko jox titre président Macky Sall parce que mérité wu ko. vraiment vraiment bu ko kenn nawooti. il ne respecte personne Macky Sall ne respecte pas les maires il ne respecte pas les il ne respecte personne le président Ousmane Sonko moom moo nekk tey nii le premier leader boo xamante ne moom moo ne l' opposition joxu ko cëram joxu ko gëddam le président Ousmane Sonko n'est pas un prisonnier il n'a rien à se reprocher kon lan moo tax la police di ko téye di di ko toroxal comme c'est un prisonnier tous les jeunes sénégalais qui sont actuellement en prison sàcc ñu drogue jaay ñu yamba defuñu lépp lépp loo xam ne dafa bon may wax ak seen i parents yoruñu ay phobie yoruñu phobie soyez de vos enfants c'est parce que vous les avez éduqués en leur inculquant des valeurs moo tax tey ñu wàcc ci xeex boo leen yaroon ñu mel ni Macky Sall kon tey dañu wàcc ci xeex c'est parce que dañu dañoo nekk ay xale yoo xamante ne ils sont il vous représente donc am leen fierté si seen doom yi te boo leen yu dox ci koñ yi na ngeen yëkkati seen dënn ngeen xamante ni vous avez des enfants qui sont honnêtes et qui qui vous représentent dignement man de je suis très fière de tous ces jeunes là ah. ma leen di rendre hommage sama dernier mot à chaque fois que je parle du ma daaneel tànk waxuma aux aux de l'ordre vous êtes payés par notre argent boo leen amee suba retraite c'est à cause de notre grâce à notre argent mais yeneen da ngeen yaakaar ni seen salaire maigre salaire bi ngeen di accroché wu ni daf leen jaral lu ne honneur honneur ngeen wax et patrie nous sommes la patrie ñun ñii ñun ñoo nekk la patrie l'honneur c'est de défendre cette partie là c'est c'est cette patrie du moins mais l'honneur ne veut pas dire être là à obéir à un, un tyran quelqu'un qui maltraite la population yéen da ngeen ma jaaxal et chaque fois je le dis aux jeunes sénégalais ce ne vos frères s'ils vous vous et battez défendez-vous et battez-vous parce que vous vous battez pour votre avenir képp ku toog nga ne yow da nga yaakaar ni le combat là ne te concerne pas tu te trompes xamal ni yàgg-yàgg dañ la fekk sa kër te dinañ di yóbbu la ci marche bi mooy nit ñi ñoo génn population bi ñoo génn spontanément parce que président Sonko ay mbiram dépasé na pour man parti politique dépassé na aussi pour man sax Sénégal ba pour Afrique la su ñu amee nag chance bu toll noonu ñu ñëw di ko jëmmal di ko dox mu am benn jimboor yi bu nekk ci biir réew mi ku def dara mu dóor ku deful dara mu dóor comme suñu maam yi ni ñu ko doon nettalee mu nekk histoire bu ñaaw moom mu fas yéene koo jox boppam def ko yëfi boppam yaakaar naa ñun war nañu am fulla gu toll ni aussi taxaw ne ko fii fii du fi amee fii du fi amee parce que fii ay gor ñoo fi nekk fii du fu amee fii jàppum njaam am na ñoo xam ne dee moo leen ko gënal man de ma dem dee moo ma gënal ma nekk ci réew moo xamee ne bi nii benn nit mooy buur di bummi di dogal te yoolu yaakaar naa ni république laaju loolu nit ki nga xam ne dafa violent on a affaire à un état violent état bi nag violence boobu la bëgg a retourner contre Pastef violence boobu la bëgg a retourner contre l'opposition aujourd'hui s'il y a du pacifique il faut a parce que jàpp benn nit tey président Ousmane Sonko mi ngi ne la mënul génn këram amul mandat d'arrêt amul mandat de blocage amul loi bu tax ñu war ko tere mu dugg këram wala mu génn këram te pourtant ñu ko bloqué ku ci nekk yaa ngi sa kër di génn di dox di dem fu la neex di dellu si amoo benn jafe-jafe pourquoi benn Sénégal ñu war ko teg loolu ñu ñëpp ñu toog di seetaan c'est pas normal dañoo war a wax du yoon dañoo war a wax du yoon parce que ëllëg ngay xaar ba mu taal sa kër ñu barricade la tëj la nga ne waa askan lañ pour man ñun ñoo war a xam ne lii mbéjum kanam la te mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam. fii banlieue bi la fii terreau de combat la fii lañ koy wanee ñi ko yow munoo noot askan bi munoo leen takk munoo leen tënk munoo leen yóbbu fenn dañ la faloon parce que dañu amoon yaakaar ci yow. ginnaaw ba ñu dese bi ñu décevoir ñun am nañ droit taxaw ne la du fi jàll du fi jàll moo tax askan bi tem voté ji violence mooy askan bi voté jël ay député yóbbu leen assemblée nga ne leen doo fi liggéey violence foofu la mën a yem. violence mooy nga yor assemblée boo wootee réunion pour tëj ay nit la pour tëj ñaari député pur la boo wootee réunion pour dàq Mimi Touré la boo wootee waatee réunion uniquement sûrement pour tëj Balla Bèye la wala pour tëj euh, keneen wala pour tëj keneen loolu nañ koy joxee am réew gëmul suñuy institution chaque jour may leen c'est le démolisseur fini et affiché des institutions moo tax tey quatre-vingt demandes yoo xam ne ñu ngi jóge ci député yi taxaw ñu yóbbu ko assemblée ba pour nit ñi am droit marche pour ñu bañ a jàpp lañu di leen tëj seen kër yi pour ñu mën a jàpp xale yi di leen rey ci yoon bi ñu ne enquête nañu ko def yow violence kay weesu lool nga rey fukki doomu jàmbur ak ñeent mars ba léegi ñu ne la ubbil enquête nga bañ yow tu es violent si tu n'es pas violent doo def loolu donc ne cherchez pas la violence au niveau de l'opposition ne cherchons pas la violence au niveau de ces braves dames qui sont avec nous ne cherchons pas la violence au niveau des citoyens sénégalais sénégalais xamul violence ku sañoon boo xëyee sa doom day dem liggéey yi ñëw violence mooy nga dawal sa oto jaar ci kaw ay journalistes yoo xam ne dañu yor oto ñu ngi fële tënd loolu mooy violence xamme woo journaliste xamme woo institution xamme woo député xamme woo dara yow la nga xam troisième mandat te troisième mandat bi sañoo ko wax du ñu xaar ba nga wax ko pour ñu ñëw ci kaw dañuy dal sa kaw ba doo ko tala wax incha allah la résistance il faut le faire il faut le faire partout dañuy woo Sénégalais yi ñu génn ne ko li nga bëgg a def du dëgg li nga nekk def du dëgg te da ngaa pare pour dem te di nga dem incha allah loolu la ñuy wax ne ñëpp taxaw na ñëpp tax président Ousmane Sonko nag bi ñu koy wax fépp fu mu ñu woo nañ ko fa wóor. il ne marchera jamais seul il ne marchera jamais seul il sera toujours avec nous à ses suba incha ci wetam ba fu mu neex ñu ne ko incha allah. Ndiaye dafa ne. guy guy daanu day bëri bruit loolu waaye àll buy sax kenn du ko dégg àll gi nga xam ne nag moo sax Ousmane sonkoo jëmbat ko ci xolu ku ne muy suñu réew muy Sénégal muy li nga xam ne suba suñu ay doom lañ ko war a jox muy li nga xam ne suñu ay maam dañu ko jox muy dëkk démocratie boo xam ne ay nit ñoo xeex ba mu agsi fii tey projet boobu la Macky Sall taxaw ne da koy faagaagal ma ne ko di nga jéem waaye doo ko réussir lu tax du ko réussir ndax dafa jàkkaarloog une nation dafa jàkkaarloog un peuple déterminé dafa jàkkaarloog ki nga xam ne ku sañoon mu dëkk sa dëkk muy le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko ki nga xam ne ku ko jëloon teg fa sa pap ku ko jëloon teg fa sa yaay ku ko jëloon teg fa sa frère ku ko jëloon teg fa sa doom xam ne liñ ko teg metti na te du dëgg du yoon li ñu teg Ousmane Sonko kuñ ko tegoon ci Sénégal nga daw mu taxaw ne damay taxaw jàkkaarloo ak ñii li tax ma koy def utuma ci dara liggéey naa quinze ans impôt et domaine jëluma fa dërëm te Ousmane Sonko su ko neexoon tey toog fi mu toog lépp fekk si ko li tax muy xeex Sénégal li tax muy xeex suñu ëllëgu doom li tax muy xeex injustice li tax muy xeex démocratie li tax muy xeex Sénégal bu gën Sénégal bi nga xam ne ñun ñu ngi fiy dund kon nag li may laajte mooy ndax Ousmane Sonko daf ñoo war a gën a gore ndax Ousmane Sonko dafa war a nekk ki nga xam ne moom kese mooy xeex wala ndax Ousmane Sonko dafa war a doon ki nga xam ne dañ koy bàyyi ñu sacrifier ko ndax Ousmane Sonko dafa war a doon ki nga xam ne daf ñuy rëcc ni ñu Cheikh Anta Diop rëccee daf ñuy rëcc ndax ni ñu Mamadou Dia rëccee man de Khadija du bàyyi mukk Ousmane Sonko di ma rëcc du bàyyi mukk un leader de la trempe de Ousmane Sonko du ñu bàyyi mukk un leader de la trempe de Ousmane Sonko et un projet politique comme PASTEF un projet bi nga xam ne tey ce les sénégalais qui l'ont épousé ndax lii ñuy xeex nekkatul combat wu parti li ñuy xeex nekkatul combat wu coalition li ñuy xeex combat la pour une nation li ñuy xeex combat pour un continent ku nekk nag fekkee te fekkee moo leen ci boole kon maa ngi woo sénégalais yëpp. maa ngi woo góor ñi maa ngi woo mat ñi maa ngi woo jigéen ñi surtout maa ngi woo xale yi ñu xam ni suba nettali day am te buñ koy nettali yal ñu bind suñu tur ci ñi nga xam ne dañoo taxaw ne déet ñi nga xam ne dañoo taxaw résister surtout ñi nga xam ne dañoo xeex ngir ëllëg suñu ay doom am Sénégal ah. fi la ñuy dugg vive le président Ousmane Sonko ah. vive le leader de Pastef ah. vive les patriotes et vive Sénégal nouveau avec une génération qui a décidé d'écrire son histoire sans le président Macky mille vingt partir